شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه أعوذ بالله إن ولي الله wa ufawidu amriya ila allah wa ma tawfiqiya illa billah alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa liqa wa fikrati nawwir wa qalbi irshada sadid lisani nawir janaani sappi amaani wa sidbara mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te leen siyaara te di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm àdduna ak jàmm alaxira di beral am nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ci seen seen bi nga xam ne mooy Assalaamy TV ci seen émission bii nga xam ne fas yéene naa kaa ànd ak yéen safar gi yëpp ñu ni ko wax mayu géej gi ngeen ciy ànd ak seen mbokk seen xarit Serigne Modou njaay yoonu géej gi nag ak mayu géej gi kenn mënu see waxtaan te tuddoo yi nga xam ne moom mooy sabab yi ndax dañuy wax ne li kulli shay'in sababun mbir mu nekk am na sabab sababu géej gi buñ ci doon waxtaan mun nañ naa séddali sabab yi ci ñaari sabab bi ci njëkk mooy sababu saahir ñaareel bi mooy sababu baatin walla nga ne sababu baatin bi ci topp mooy sababu saahir sababu saahir yi mun nañ cee tudd li ci gën a siiw rek te ñépp xam ko wala ñu ëpp si ñi nga xam ne ñu ngi topp njàngalem sëñ bi xam ko mooy tuumaal gi ñu doon tuumaal sëriñ bi li nga xam ne mooy ne dafay woote woo ak jihaad dafay woote woo jihaad comme ni ko gaaye jiitu defee woon la ko dalee si yonent bi salaatu wasalaam jàll si ay saxaabaam yu terd ya ba nu mu duggee fii si Afrique ba nu jàll see fii ci senegal ñu gën cee xam ñu gën cee miine ku siiwee ni Mbaba Jaxu wala ñu Samba Sadio wala ñu wax ci euh, Alaaji Seexu Ba ak ñu demee noonu nga xam ne dañ doon woote woo ngir fexe jihaat ak noon yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekkoon tuuma googu ñu ko tuumaaloon nag bokk na ci li nga xam ne bokk na ci sabab bi tax ñu woolu sëñ bi ba leen di wuy ji te woolu gi moom mooy sababu dem ci géej gi tuuma ñaareel gi bokk na ci mooy sëriñ bi ginnaaw bu mu nekkee ci yoonu teg tajdiidam boobu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf kaa waxoon ne rabbi asaabakal bil himma wala tu rabbi bi dar ci faqat yaral sa mbooloo mi ci himma ak yitte ju kawe ak jàng ak yar ak teg seen tànk fa nga xam ne nii moom la saxaabatu ridwanullahi alayhim tegoon seeni tànk bi sëriñ bi wooyee daara ji xamal na leen ah képp koo xam ne danga fee ñëwoon ngir am njàng képp mën ngaa dem waaye képp koo xam ne nag dangaa namm li ma namm te mooy al wusulu ilallaahi egg sa yàlla ak jaayanteeg bakkan ak dox ci yoon wi nga xam ne nii moom mooy yoonu yàlla ñu ñu dem woote woowu nga xam ne nii yonent bi yoot digaloon na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi nag sama borom wax ko comme lem waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy fas da bi maatu mar li la yàlla wax yë yëkkati ko ba ci kaw ñëpp déggu ko woote woowu nag bi ci sëriñ bi amee ndigal ba di ko woote ah, ñu bari dañ kaa wuyu si fu ne nit di fa jógee saalum mbawal gannaar kajoor fu nekk rek nit jóge jóge di ko wuyu si ci biir wuyu si boobu nag dafa am ñenn si doomi buur yi wala jarbaatu buur yi nga xam ne nii moom moo ci nekkoon di ñëw wuy si loolu nag metti leen woon lool metti gi leen metti nag taxoon ñu kalaama ko tubaab bi ci loolu rek mën nañ cee tudd ku mel ni buur lanc tanoor sañ tanoor mi nga xam ne euh, buur la woon amoon kattan amoon doole bi nga xamee ne nii jarbaatam boobu mi ñuy wax Cheikh baabakar njaay Jargaan ñëwoon na wuyu ci woote wi ànd kaak ñam ka àndaloon sëriñ Mor Maane ak ñooñee nga xam ne dañoo jógee ci ay banqaas yu am doole nekkoon ay buur yoo xam ne nii dañoo nekkoon ci jamono jooja ay buur yu am doole daan buum daan bum mi bi woote sëriñ bi nag tàmbalee yaatu di def noonu ñu koy wuyu si ah buur yi nag xolub doomu soxna dugg leen ñu kalaameeg sëriñ bi ak euh, tubaab bi bokk na ci tamit li nga xam ne moom mooy sababu saaxir bi ah ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di ay doomi soxna ñi ñi ni ni ni moom dafay am ñenn ñoo xam ne tamit ni sëriñ bi doxalee ndax sëriñ bi fekk na fi ay turux yu baree baree bari ñuy woote di doxin di yar di jàngale waaye sëriñ bi dafa ñëw daal di tajdiit yeesalaat indilaat yeneen yoo xam ne nii maanaam euh, xamuñ ko woon loolu nag doom lu tumuranke seen i bët doom lu tumuranke ci seen i nopp doon lu tumuranke ci seen i déggin moo tax euh, mënuñu woon a xajoog sëriñ bi si loolu nag si la sëriñ bi di leeral di wax ne yaa jumlatan xasallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa inni la mujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wa muhayminu saahidu wa maqaalukum bi ani ujaahidu saadixun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu ne leen ah li ngeen wax ne damay jihaad kat dëgg la maam damay jihaad waaye man nag jihaad bi may jihaad métod bi may jihaatee ak façon bi may jihaatee bokkut ak jihaad yi ngeen foog bokkut ak jihaatu mbabba bokkut ak jihaatu Samba Sadio bokkut ak jihaatu Amady Seexu bokkut ak jihaatu kenn sañ a jiitu woon man damay jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla te sama jihaat bi amul yëkkati ngànnaay amul yëkkati xeej amul yëkkati paata amul yëkkati jaasi amul yëkkati lenn loo xam ne nii comme jihaat yi ngeen xamoon la man bu may jihaat damay jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla tak wa inna nii li wajhillaahi jalla ujahidu maanaam jëmmi yàlla képp képp képp moo ma tax di jihaat bugguma ci jihaat ba noppi di ci am ndombal tànk wala ma jihaat ci ba noppi di ci gañ suuf wala ma jihaat ci ba noppi di ci gañ nangam ak nangam ak nangam li wajhillaahi rek jëmm yàlla ji rek moom moo ma tax di jihaad yooyu nag boo ko boolee bokk na ci li nga xam ne moom mooy sababu maanaam saahir gi nga ñëw ci sababu baatin gi sababu baatin gi tamit mën nañ kaa séddale si ñaari xaaj ci biir sababu baatin googu bi si njëkk mooy sëriñ bi kenn ku nekk xam na ne euh, da doon daw nit ñi doon leen beddi euh, daaw nangu jaxasoo bu bari moo tax danaan faral di def fépp foo xam ne nii sanc nañ fa ba nit ñi daw wuyu si ko rek sëriñ bi day daal di bàyyi foofa daal di dem euh, maanaam sanc sañaan loolu buñ delloo tuuti si ginnaaw si taarix dinañ gis ne bi fi Maam Mor Anta Sali jóge daw nit ñi moom moo tax euh, faka la jor doon woo wuyu si ko ba mu woy xaaliwulu wax fa qultu xasbiya rabbi waqtafaytu bihi walaxtu radiya xayral ilmi wa diini euh, si loolu tamit si bedd nit ñi si la waree waan xaaliwu boo demee ta biir xasida nga ma ngi koy wax naan alhamdulillahi iskaana safahatuna idaamatul wirdi wal ashkaari wal fikari bu fekkee ne beddi gi ma beddi nit ñi ak ñàkk jaxasoo gi ma ñàkk jaxasoo ñoom moom mooy waral ñu may considéré ne da ngaa dof kon alhamdulilah si dof gi dof dof goo xam ne tudd yàlla ngay dëkkee dof goo xam ne jaamu yàlla ngay dëkkee dof goo xam ne sikkar ngay dëkkee man googu dof neex na ma lool si loolu si la sancee Mbàkke Bawal ah, ba ni mu sancee Tuuba ba ñu sancee Daaru Salaam loolu yëpp rek ngir daw nit ñi ba ñun sancee daaru xuddoos bi mu nekkee ci biir daaru xuddoos nekk ci jàkkee daaru xuddoos ji nga xam ne moom la ñuy wax bayti tay sëriñ bi dafaa def al i'tikaaf sëriñ bi bi nga fay def i'tikaaf ba yonent bi alayhi salaatu wa ñëw fekk ci ko ci biir i'tikaaf googu ci lay wax naan rasulun karimun baytana saara ahmadu maanaam yonent bi salaatu wa ñëw ci boppam ci jëmmam. bi bi aynihi wa bi zaatihi si jëmm yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi zaatihi wa bi aynihi si jëmmam si melokaanam ñëw jox ko ijaaza bi nga xam ne nii moom la ko doon jox daan na ko say at sax matagut maam ngir ñu jox la ijaaza bii ñu la war a jox waaye sa ju kawe ak sa farlu ak sa nangoo jaamu yàlla ak sa set ak sa wéet moom moo tax ñu di la jox ijaaza bii. sëñ ne ko naam ijaaza bi baax na lool rafet na lool tedd na lool waaye bëgg naa lu ko gën a kawe. bi mu waxee ne bëgg naa lu ko gën a kawe nag yéen tamit dana tekk di ko mu ne ko ana loolu nu mu Seexul Xadim daan na ko man kat damaa bëgg a bokk ci sa mbooloo mii nga xam ne ñoom ñoo la dal tànk boo teg ba teg gi ñu teg fa seenu tànk ci laa bëgg a bokk yéen tamit ne ko ah loola faat na loola ñu ko defoon lañ defoon faat na ndax noom dañoo génn seeni kër xaraju min diyaarihim wa anfaqu amwaalahum wa jaahadu fi sabilillahi xaqa jihaadi dañoo génn seeni kër dépenser seen alal ba nga xam ne deseetuñ dara waaye nag jihaat ci yoonu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jihaat te tur deret jeex na tur deret jeex na kon loolu naka la mën a nekkee ah sëñ Bamba daat siy dogu si loola daat si am ak azm daat siy dogu ko ah man de loolu mooy sama yitte yonent bi xamal na ko ne loolu kat am nañu ko bëggoon ña jiitu woon mu yàgg waaye bañ leen waxee nattu ya sa nekk ah attanuñ ko maanaam dañoo deltu ginnaaw sëñ ma daat koy xamal ne ah bakkan bi de xuma kañ lay rot waaye bu fekkee ne bakkan bi mu ngi fi jom ji ak fit wi ak ngor gi ak bëgg-bëgg bi attan na ko waaye nag wa ma tadri nafsum maa saa taksibu xadaa wa ma tadri nafsum bi ay at bi tamut sa borom ma wax ne benn bakkan xamut lan lay fàggu suba waaye benn bakkan xamut fan lay faatoo waaye daal man daal li ma mën a xam moom mooy bëgg-bëgg baa ngi fi jom jàng fi te yitte ju kawe jàng fi ñun tamit alayhi salaatu wasalaam ne ko ah waaw baax na natt yi day mi ngi ñëw te nag sa dëkk bii nga nekk rawatina ak daaru xudduus gii yow yaa fi ñaanoon sa boroom ne bu la fi benn luy lore fekk bu la fi dara loo xam ne nii dafay gaañe wala dafay naqari bu mu la fekk ci loolu nag si la sëriñ bi. demee sanci Mbàkke Baari sa Jolof waaye tamit fekkoon na sëriñ bi bi ko yónni bi alayhi salaatu wax doon wax loolu alayhi salaatu wasalaam di wax ne maanaam dëkk bi dara luy loral la fekk kon faaw nga génn ko sëriñ bi amoon na yéene génn ndax booba maanaam nit ñaa ngi ñëw fu ne ñu jóge fa ndax euh, booba sanc na daaru salaam sanc daaru Qudus sanc daaru Minnam te fenn fu nekk rek la fa nekk ci ay nit ëpp na ñatt téeméeri donga ëpp nañ ñaar téeméeri donga diggante jàng alquran jàng xam-xam tarbiya ak yitte ju kawe rek si lañ nekkoon nit ñi tamit di jóge fu nekk di ñëw kon mu mel ni ah, waxtu wi ñu cërale woon ah, maanaam mat na ah, bu ko defee ñu leen di dox dig daje rek suñ yeneen jataay yi nga xam ne nii moom moo ñëw si mayu yoonu géej gi ak xéewal yu yoonu géej gi ak li nga xam ne nii moom la sëriñ bi fàggoo ci géej gi inchaa allahu rabbi ñu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala maahin mahal habsa wa safar falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi